jërëjëf jërë ngeen jëfati mbokk internet yéen ñuy topp seen chaîne bi di Buzz Sénégal Actu daleen ak jàmm vidéo bii na ngeen di seetaan wala ngeen koy déglu mën nañ ne mooy nekk dernière vidéo boo xamante ni dinañ ko dugal ci chaîne bi ñi internet yi di ko mën a seetaan li ko waral nag du leen lu jafe-jafe yoo xamante ni am nañ ko ak YouTube YouTube moom nag gàntal liggéey bi nga xamante ni doon nañ ko amal fii nii ci seen bii di Buzz Sénégal Actu loolee nag tax nag ñu ubbiwaat beneen seen loolu wolof njaay naan jinax bu bëggee mucc day bëri pax ubbiwaat nañ beneen seen boo xamante ni bu bees pax amagul benn abonné yow mi may seetaan maa ngi lay ñaan nga daw waaxu daaw abonné ñu foofa noonu seen bi ñu ngi ko tuddee les patriotes TV les patriotes TV nag boo leen ko déggee moo leen mooy gis affiche bi ngeen di gis nii nag ci écran bi nii mooy les patriotes TV patriotes TV nag lu ko tax a dul lenn lu dul dab ba neexu ngi démb bi ñoo ko jàppee nag buñ sukkandiku journal bii de Libération moo di ñi nga xamante ni ñoom la wax waa di dikk division investigation criminelle noo ko daal di jàpp ji fi nga xamante ni fa la nekk buñ sukkandikoo ba léegi si li nga xamante ni moo di Dakar ak te nee nañu nag li nga xamante ni moo di jàpp googu nga a wér la waaye nag moom ay mouvement moo xam wala euh, lii di campagne moom moomee nag kon jàpp nañ ko ni ki démb fukki waxtu jotee si bëccëg moom moomee nag Dakaractu di wax ne daal moom mi nag dañ koy tudd lu bëree bëri si li nga xamante ni moo moo di disparaître wala réeru ñi nga xamante ni moo di Fulbert Samba ak ki nga xamante ni moo di Didier Badji ginnaaw bi réere ñoom moom mii nag dañ siy tudd turam boobu ba léegi waaye nag loolee nag mën nañ ne état bi fi nekkoon bëggoon a far li ni mel moo taxoon mu woote li nga xamante ni moo di loi amnistie boobee nag mën nañ ne ñu woote ko ci mois de février 2024 loolee ana état bi nga xamante ni moo fi nekk tey jii ndax day dëggal am loi amnistie boobee wala nag